salaamaaleykum suñu mbokku internet Caaroy info TV dal leen ak jàmm ci seen émission càmbaru bis bi mu nekk émission boo xamante ni dañ koy def du lundi au vendredi mu mel ni sax sama naataango Amadou Mbodj ngeen daan fi faral di gis mais tey ci nga xam ne moo di àjjuma bi rek man maa ko fi aw ci noonu rek comme niñ koy defee saa su nekk rek dañuy waxtaanee li nga xam ni moo di actualité li nga xam ni moo di temu tey bi nag moo di lan mooy ëllëgu politique bu Ousmane Sonko waaye tamit dinañ waxtaanee bu baax a baax sergent bi nga xam ne nag dañ ko rek daal di teg loxo ginnaaw nag ba mu daal di sàcc rek ay euh, produits li nga xam ne moo di produit sanitaire euh, ci noonu rek comme niñ koy defee saa su ne may dalal samay chroniqueur euh, Mouhamed Goloko ak ki nga xam ni moo di Fadiga di fàttali rek tey am naa ñaari invité kenn ki di wuyoo si turu Bi Diallo Bi Diallo je rappelle que mu nekk conseil technique bu ministre Mame Mbaye Niang waaye tamit eh, di dalal sama beneen naataango muy Amadou ñaar Diallo moom mi nga xam ne nag responsable politique la fii ci diwaanu Jidda Caaroy Kaw waaye tamit mooy eh, vice président bu ay ASC Guy gi laataa loolu rek eh, ma bàyyi samay chroniqueur Mouhamed Goloko daal di nuyoog mbokku internet yu Caaroy Info TV. waaw maa lay fay Amina Paye di nuyu mbokku internet yu Caaroy Info TV di nuyu suñu suñu invité yi nu mu tuddati Amadou ñaar jàlloo ak aussi Bi Diallo di leen dalal jàmm si seen plateau càmbaru bës bi. mais di nuyu aussi sama confrère Mohamed Fadiga. Euh, merci beaucoup Mohamed Gloko di bàyyi rek ki nga xam ne moo di euh, Fadiga mu daal di nuyu moo ko internet yi. waaw fay naa leen Amine salaamaaleykum mbokk internet yi. Euh, comme chaque soir émission bu mag bi càmburu bis bi donc may remercier suñu ñaari invité yi seen disponibilité Amadou ak bii di leen wax soyez à l'aise et soyez la bienvenue merci beaucoup Fadiga di bàyyi rek ki nga xam ne moo di Amadou Niang Diallo daal di nuyu mbokk internet yu Caaroy Info TV waaw euh, asalaamaaleykum ñu ngi nuyu suñu mbokk internet yëpp ñu ngi si daal di nuyu ñu ma bokk plateau di nuyu sama grand frère Bi euh, Diallo di kontaan bu baax a baax baax si tey lu ñu ngi invité si euh, càmbali bis bi. merci beaucoup Amadou Nia Diallo Bi Diallo Thiaroye Info TV mi ngi lay dalal. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi seetaan site bi ak monde entier di leen nuyu di leen d'accord di leen jaajëfal suñu mbokk internet yi di fàttali rek yéen a ngi ñuy suivre si suñu page Facebook caaroy info point net waaye aussi bu si kanamee tuuti di ngeen am émission bi ci li nga xam ne moo di suñu chaîne YouTube di caaroy info TV euh, ci noonu rek comme ni ma leen ko waxee rek ca njalbeen ga tey ñuy waxtaanee euh, émission li nga xam ne moo di ëllëgu politique bu Ousmane Sonko ku ne xam na ni rek kii di Ousmane Sonko dañ ko rek daal di tuumaal wala sax mun nañ ni dañ ko daal di jiiñ amaana lu mu si demee sax xamaguñu nu mu nu mu lu mu ci mënta doon rek xamaguñu lan la waaye loolu lañ mën a jàpp rek ginnaaw ba enquête ubbi na ci li nga xam ne moo di enquête yi euh, ñu fas yéene xam rek ñu laajte lan mooy nga xam ne moo di Ousmane Sonko je rappelle que ku képp koo xamante ni bëgg nga ñu invité ci li nga xam ne moo di suñu plateau Thiaroye Info TV fii ci càmbaru bés bi mun nga ñu joindre ci 77 788 65 65 wala ci 77 036 06 74 Mouhamed Goloko tey ku ne xam na ni euh, mbir mi nga xam ni moo lëmbe mi mu di coowal Ousmane Sonko eh, gis nañ tamit li nga xam ni moo di révélation yu bëri mi ngi commencé di wadd eh, enquête enquête bi sori na tamit eh, ci li nga xam ni moo di recherche yi muy def tey ji yow lan nga mën a jàpp ni mooy ëllëgu politique bu Ousmane Sonko. waaw li nga xamante ni moo di ëllëgu politique Ousmane Sonko mën nañ ne li nga xamante ni moo di affaire de viol bi accusation la wala moom moo ko def. moo nar nekk li nga xamante ni euh, moo moo moo ko war a déterminer euh, lii euh, lépp li nga xamante ni mooy issue procès bi rek loolu mooy déterminer l'avenir d'Ousmane ko bu fekkee procès bi daf ko criminaliser donc Ousmane Sonko mën na ne adieu ce qu'on appelle le fauteuil mais aussi bu si génnee mën na am benn atout boo xamante ni da koy permettre mu def benn survol bu extraordinaire parce que njortu nañ ni li nga xamante ni moo ko dal ni laal na li nga xam ni moo di politique moo di Ousmane Sonko bu génnee si lii mën nañ ne exploit bu extraordinaire la bu koy permettre mu mën a rëcc mais bu ci génnul nag euh, on peut dire que c'est c'est la mort politique de ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. c'est la mort politique de euh, ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko mu nekk loo xamante ni sax moom la ñuy teg ci table bi tey waxtaanee ko Mouhamed Fadiga lan nga ci gis. waaw comme sama frère nu ma ko conclure rek mooy ñaar la tey jii Ousmane Sonko bu dee procès bi euh, arrangé wu ko mooy cela veut dire que caabi féetee na ko ginnaaw donc mënul wax politiquement il est mort mais aussi am na si beneen atu mooy tey jii bu nu demee ba xam nga du nga ko accusé rek bu nu setal deram cela veut dire que Sénégalais yi du ñuy du ñuy du ñuy sat loolu moo fi daloon Idriss Seck en 2007 euh, bu mu demee élection ba génn deuxième position cela veut dire que duñ ko tooñoon en quelque sorte bu mu génnee Sénégalais yi dinoo sat donc cette fois aussi aussi tamit mën na demee noonu. Euh, bu dal, daal caabi féetewu ko dal, daal mën ñu japp dal avenir am day avenir bo xam c'est un peu prometteur pour mu accéder à la présidentielle euh, pour mu accéder à la présidentielle mu melni sax ëllëgu politique am leer na lëndëm na. Mm-hmm. Euh, mu nekk rek loo xamante ni damay bàyyi rek euh, def ci point d' interrogation moom Mouhamadou Mamadou Amadou Niang Diallo dalal naa la ci sama plateau tey jii en tant que nit koo xamante ni da nga yëngatu ci wàllum politique Ousmane Sonko gis nañ ni li nga xam ne moo di viol bi am na moo ko def wala defu ko yoon mi ngi ciy amal ab liggéey mais tey jii en tant que homme politique lan nga xalaat avenir ëllëgu Ousmane Sonko ci sur le plan politique. waaw bon man euh, par rapport ak actualité boobu noonu lii nga xam ne ni euh, ñu ngi koy accuser le président Ousmane Sonko dafa nekk lu doy waar. te am na yaakaar naa yaakaar naa ne tey yaakaar naa ne tey lii moo na mën a doon benn euh, liy joué si carrière am si lu bëri si lu koy jëmale kanam wala lu koy delloo ginnaaw comme ni ñaari chroniqueur yi waxee parce que xam ngeen ne affaire viol du nekk nekk lu ndaw kon daanaka daal moom actuellement ni procès moo ñuy mën a jox avenir en quelque sorte si politique parce que day jii nii bu fekkee ne il est condamné moom comme ni ko gars yi waxee que ñu bëri xalaate moom mooy euh, na na wax baay bàyyi fauteuil présidentiel parce que boo xoolee si actualité DSK de ministre Kane en 2011 2012 diggante boobu je me rappelle euh, pas l'année mais boo xoolee lu mel ni daloon na ko moom ak na Nafissatou Diallo te bu nga bu mu génnee si loolu def na wala deful xaw na takk takk trop mais ba ba bu ñu génnee si projet boobu sax boo xoolee carrière am politique carrière am business am lépp dafa yàqu. kon c'est-à-dire que affaire de viol dafa nekk loo xam ne ni lu doy waar loo xam ne ni mën na déterminer laayefu kii nga xam ne ni kooku lañ ko jiiñ que soit mu nekk si politique bi que soit mu nekk si leneen ak leneen ak leneen laa si jàpp. merci beaucoup Amadou Nia Diallo bi Diallo euh, li nga xam ne moo di avenir politique Ousmane Sonko tey ji yow nga nekk koo xamante ni da ngay politique ñu ràññee la bu baax a baax fii ci diwaanu Jidda Caaroy kaw ana ban appréciation nga ciy def. waaw avant dafa am lu ma bëggoon éclaircir rek leeral ko. Mm-hmm. avant ñoo wax xool d' loo xam nañ fekki suba. Mm-hmm. ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay sénégalais dañu ñaan yàlla ku nekk di am jàmm. Mm-hmm. mais coow de ñett rek moo ko wund que ça soit aji saar waxul dëgg. wala Ousmane Sonko waxul dëgg wala ñoom ñaar dañ ko waxtaane mu jubóo loolu rek moo mën a nekk beneen bi ci des mooy dañuy fàtte di faral yi ni nañu bàyyi politiciens yi affaire yi ñuy jël ba politique parce que au fait boo xool ñoom ñaar dañu waxtaan ba jubóo affaire civile la kii da ko tuumal kii da tuumal affaire civile la mais yoonu président Macky Sall nekku ci fii opposant boo xam ne sa bopp dafay sax nga ne Sall moo ma teg lii nañu bàyyi loolu gis nga man mi di taxaw nii di wax su ma ne Ousmane Sonko moo def maa ngi bakaru su ma ne deful ma ngi bakaru parce que allahu alam yalla rek mo xam mais dafay baax ñu xam ne lii affaire yoon la Macky Sall jappul ci loxom ñu bëgg ci salon de massage bi salon de massage boobu ñu yox pour faj dara wala li pour bànneexu boppam la pour sa sa naf topp sa nafsu kon nañu bàyyi di wax ay lii la wala lii affaire bi politiser benen bi ci dess ma ngi gis nii véhicule lo xam da fay tal rew président Macky Sall mo woote won naan nangam nangam nangam bokkul institution bi dañ doon laal constitution ñu ne askan war waruñu ko nangu lii ak lii bokkul lii affaire viol la affaire civile la diggante Sonko ak moom la. am na ci droit sénégalais la Sonko ak la Adji Sarr mais xel dafa mënul nangu ñuy défendre Ousmane Sonko di bàyyi Adji Sarr mais lan mooy problème bi ñun dañu war a xam ni ñun àttewuñu duñu ay juge ñu ay avocat yu ay magistrat dañu war a bàyyi askan wi def beneen bi ci des maa ngi lancé un appel man je ne comprendre ñu nekk ci réew. président Macky Sall taq ci taqewu ci laalewu ci waxu ci yooyu ci yàggu ci parce que yoonam nekku ci affaire bi affaire civile la fii ku neex ñun ñep kum mu neex am nga droit dem salon def la neex. mais dafa fekk no lo xamante dañ ko daan faral di gis ci historique gu politique bu Sénégal lo xamante par exemple tay jii bo gisee sa adversaire lepp loy def pour faagaagal ko rek mën nga ko def. soxna si xam nga dafa am ko ci tuumaal du ma tuddu turam Ousmane Sonko def vidéo var ñu ngi fi mun ñak ñàkk ful la weesuwul def li ngay def ba paré naan dañ ma tendre piège boy bi lan la wax Bassirou Diomaye fay dafa duggal Ousmane Sonko ñun yëgoon na ñu ngi top mais ku ñu xam ñu ngi lay fexel bo gisee pax mu doo ko moytu Macky Sall ban inter la am di fexel Ousmane Sonko. si parce que Ousmane Sonko actuellement il pèse lourd dans ce pays tey jii mën opposition Sénégal Ousmane Sonko mo fi nek ko xamni mom moy moy mooy teg tànk rival principal bu Macky Sall. donc du coup li bu amé mën nañu ñort ni même Macky Sall sax du ci laalul de euh, près no de de près lan la ci de loin xam nga lu dox ma wax lolu ki dem salon massage di tago su boba mën nañ la fexel d'abord couvre fa la fa dem ci li ñu wax man julit la ramex luma leer allah wax la ñal la mo xam mhm. couvre fa mo amna droit dem fa parce que c'est un député ministre ak député ñoo am droit genn fofu mo bu démé fofu ba leen fekk ko fa xanaa nag wax dëgg yàlla Ousmane Sonko nit ñi amuñu jot intérêt di ko topp di ko topp fu muy dugg. non dafa def erreur ngeen exploité erreur non du question exploité ki mu amal problème c'est une sénégalaise moom moo def plaindre man li may wax dama am rek dama am ay doomu jigéen tey jii man sama ngor may ma may tuumaal Ousmane Sonko parce que jurit laa bëgguma ko teg sama bopp fii nit mënu la wax nit lu mu aay aay aay aay la wax. Ousmane moo defal Ousmane deful li ma la wax wax au début. en tout cas en tout cas mu nekk loo xamante ni du lu gulee ndax li ma ni ma la ko waxee rek képp koo xamante ni tey jii sa adversaire politique mun nga def lo xamante xeyna xëy dootu ñuko dégg ti dang koy def parce que politique mo démé nonu mhm. loolu du lo xamante c'est la première fois au Sénégal est-ce que comprendre nga euh, kon bok su féké xeyna comme yoon mi ngi def liggéeyam xeyna yoon na def liggéeyam mais su féké da nga ni par exemple xeyna état laale wu si wallahu alam yalla rek xam mais comme ko yoon mi ngi def liggéeyam defu ko def def na ko defu ko yàlla rek xam mais dama bëgg nga reconnaître que ni politique mo démé nonu parce que Ousmane Sonko tay mun nañ ni mom moy potentiel adversaire bu président Macky Sall mhm. tay ni mom mooy il est le le le en fait je peux dire le seul bo xamantani mom moy euh, comment dirais-je adversaire bo xamantani euh, dañ koy ragné ba paré amna ginnaw amna nit yo xamantani ñing ci ginnaw dogu la fofu sax mais fi may waxé nañu bàyyi di wax adversaire politique son excellence président Macky Sall bi muy accès pouvoir limu opposé wu yagul mm-hmm. yalla moy tan njiit wax lu bon taxul nga nek président wax lu baax taxul nga nek président mm-hmm. suñu borom trace na li mu wara tracer bu yag dafa am loo xam ne dama ci bëgg sénégalais sax ñu bàyyi xel lii état laalu ci de nii de loin affaire civile la lan la ñu wax tey ku nekk yaa ngi génne say investigation di wax naa nag lan la ñu wax doomu honorable député Pape Sagna Mbaye ñu jóge foofu ne waat doomu euh, monsieur le ministre yaa xam Mbaye ñu jógaat foofu ne d'ailleurs sax c' est le neveu de Maodo Malick Mbaye. en tout cas enquêtes yi enquêtes yi ñoo toll foofu enquêtes ñoo toll foofu bii jàllo parce que xëy na am na information yoo xamante ni buñ koy buñ koy en fait buñ koy jot dafay fekk dañ naan ah enquêtes yi de lii ak lii lañ gis ginnaaw enquêtes yi dañoo ni dañoo gis ki nga xam ni moo di doomam daal di ñëw ñëw jël si foofu doomu Maodo Malick Mbaye boobu. non man li may wax rek euh, Ousmane Sonko dafay victime wu je comprends nga. Mhm. dafa bëgg askanu jàppale ko parce que ñëpp dégg nañu li mu def. Mhm. def na point de presse am xel na wala loolu jaxase na Macky Sall ak askan wi président Macky Sall lu ñàkk fula du ci laale du ci waxe xool caméra bi du ci laale du ci waxee président Macky Sall mais man li may déplorer jeune ne peux pas comprendre nañu bàyyi sos ak yàq der waa parti waa APR taxaw ci laa bokk. naan ay Macky Sall ko ci kenn wax Macky Sall mais ami bu xam nga euh, mm-hmm. di li nga question bi ci mais dafa ay yu mm-hmm. comme Amina nim ko bo xolé histoire politique képp ko xamanteni président nga wala nga le seul opposant souvent tu as des problèmes à exister loolu xam ni lu fait bu réel la mais dafa exister ci ay Russie

l'erreur est humaine parce que man fi ma doon xaar Ousmane Sonko mooy dew ma fa man foofu laa ko doon xaar jur la nag dañu ñaan yàlla ma de loolu laay wax li ko ndaw si topp li ko ndaw si di wax ak li mu koy jiiñ damay ko dal dañu toll foo xam ne am na yoo xam suñu tuuti beneen bi des damay lancer appel mhm. président Macky Sall taxewu ci laalewu ci mhm. waa APR ñi Macky Sall jox nombal tànk nañu génn défendre ko mhm, ah mais lii dara xew si réew mi gisuñu benn apériste génn def communication non xam nga donc am na lu xew parce que ñoom noo doon ñoom noo doon nekk le bouclier du président de la république Macky Sall man lu ma sa aw lu ma sa am bu su ma sa jiñ état ñoom nooy daw si médias yi toog di wax mais cette fois ci duñu gis benn affront bu am donc y a quelque chose non parce que man ñi may gis ñi may gis ay quelques-uns laay gis comme ay man ay Rama Macky Ba honorable député ak yenn booy laay gis ñuy défendre les ressources yooyu mm. te pourtant ñun Macky Sall la fayuñu mais dañoo am ngëm-ngëm am conviction mais xam nga la laa comprendre dafa am wala sur le ma te lii ma je vais lancer un au président Macky Sall li ñuy wax chaque jour du ko tudd deru APR ay ministre moo wax li ay directeur moo wax lii il temps mu xool entourage am y a des y d'accord euh, accord d'accord Diallo d' accord Bi Diallo ma bu mais di rappeler que ni émission bi dafa nekk loo xamante suñu mbokk internet yi dañ koy suivre euh, via euh, Thiaroye info point net ki nga xam ne moo di Alioune mi ngi de tout cœur avec notre président du mouvement dafa mel ni sax Amadou Nia Diallo lay wax waaye nag ki ñi nga xam ñoo di internet yi ba léegi ñi ngi continuer di commentaire Aboubacar Seck mi ngi en honte à vous la jeunesse africaine veut le changement dafa mel ni sax jeunesse bi moom dafa bëgg changement moom xëy suy wax dafay jëm rek ci ki nga xam ne moo di camp wu Sonko ki nga xam ne moo di Abdou Salam bay nag nekk suñu DG DG ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax gis nañ ni aussi mi ngi leen di jaajëfal waaye tamit mu ngi nuyu ñi nga xam ni ñoo di suñu ay euh, invité yi nga xam ne ñoo fi nekk am na ku may signaler léegi si plate si biir mbokk internet yi mi ngi ma naan ñi toog ci plateau bi lan la ñuy lekk dafa mel ni chingom <laughs> bi Amadou ñaa ñaa di di lekk lañ nekk di mu mel ni sax nag dañuy desandi si suñu mbokk internet yi ba léegi parce que ñu ngi jaajëfal bu baax baax équipe bu caaru info bi di joxe ay félicitations rek naan liggéey bi rafet na ki nga xam ne moo di abdourahmane fall moom mi ngi naan bii jàllo borom jidda caaru kaw moom tamit mi ngi nuyu ki nga xam ne moo di aliou ndiaye moom tamit ñëwaat na nee na eh, waa ji de mi ngi accusé Sonko ba pare di wax leneen dafa mel ni sax bii jàll xëy na lay mm. waxal mbokk internet yi mu mel ni sax euh, xamaan xam naa rek dinaa ñëwaat ci commentaire yi rek bu si kanamee ndax ni ma koy gisee nii rek commentaire yi bëri na yéen ci biir émission bi ngeen bokk euh, tey jii Mouhamed sànq man ngi koy wax ki nga xam ne moo di bii jàllo ma ne ko xëy na politique histoire politique xëy na yow comme yaay suñu historien amaana mun nga si def benn petit rappel histoire politique nekk na loo xamante ni képp koo gis mu nekk sa adversaire noo mën a def pour faagal ka di nga ko def euh, mu nekk loo xamante ni yàgg na Sénégal du lu guleet ana lan nga ciy wax. waaw loolu euh, comme ni ma koy waxee temps yi yëpp euh, dafa nekk loo xamante ni lu yàgg la te loolu ay fait historique la. Mm. même koo xamante ni peut-être defoo histoire wala defoo ay études historiques yu poussé mën nga xam loolu boo xoolee Sénégal ba mu accéder indépendance. deux ans après ki nga xamante ni moo di le président wodi momadou dia at ñi mu andalon ay val jojo ndjay ay ay ay joseph mbay n'est-ce pas ay ay ay ibrahima ay ibrahima Euh, j'ai oublié le nom mais dafa nekk benn groupe boo xamante ni euh, ki nga xamante ni moo di Léopold Sédar Senghor da leen liquider mais un peu plus tard boo gisee après euh, crise 68 bi da nga gis ni ay ay professeur Iba Der Thiam wala ay Abdoulaye Bathily dañu nekk ñoo xamante ni aussi dañ leen écarté ci langue politique bi Abdoulaye Wade biir na la même chose mais aussi boo demee ba ci avènement wu Macky Sall aussi da ngay gis la même chose c'est que ñi nga xamante ni ñoo di ay adversaire directam da leen di éliminer loolu il faut oser le dire c'est-à-dire loolu politique la mot politique sénégalaise ñoo and, mais mot politique africaine ñoo and. Yagoul dara Mali ki nga xamante ni moo di Soumaïla Cissé dañ ko emprisonné woon mais ba mu génnee lan moo ko ci fekk après dafa mujj décédé même en Côte d'Ivoire c'était la même chose ak ki nga xamante ni moi fa le le véritable opposant donc loolu day nekk loo xamante ni ay faits yu réel la ki nga xamante ni le président qui est au pouvoir souvent ki nga xamante ni ils son dauphin day fexe coûte que coûte pour euh, éliminer maintenant il ba da koy orchestré wala selon ki nga xamanteni mo selon circonstances ki nga xamante ni moo di opposant Vladimir Poutine jamono yi ñu toll mi ngi fi nga xamante ni moo di prison donc loolu noonu mënuñu koo dindi ci politique. mënuñu koo dindi ci politique Mouhamed Golo ko ma dem rek ci ki nga xam ne moo di Mouhamed Fadiga euh, tey ji euh, lu ni mel suñ ko gisee ci li nga xam ne moo di langum politique bi yow tey ji en tant que chroniqueur lan ngay xalaat ëllëgu politique gu Sénégal. waaw euh, comme ni mu koy waxee fii saa su ne ah, mooy fii Sénégal sunu politique arène la arène gladiateur la. de toujours le président de la République qui n'est au sommet il a tous les armes donc à chaque fois de koy utiliser Nous nekk pays le président de la République le euh, comment dire exécutif judiciaire législatif donc lui il est tout puissant c'est un demi-dieu donc en plus avons yor ressources pour lui dire. donc il fait ce qu'il veut donc du coup nous avons dit tiit là ak njàqare comme sama frère bi ko décortiquer Ablaye Wade subir na ko euh, Idriss Seck subir na ko Khalifa Sall subir na ko aujourd'hui c'est le tour de Ousmane Sonko. donc tay jii on va continuer hein, du fi yam du fi yam keneen timit bu fi ñëwee toog processus bi lay continuer parce que tay jii politique du Sénégal mo démé non donc c'est le roi du plus fort. ku mën sa morom duma dafa melni non noonu lay demee ñaa euh, jàllo ma ñëw ci yow rek bala may dem ci bi jàllo euh, tay gis nañ li nga xam modi langue politique bi fi ci diwaanu Sénégal doyna war Euh, bu ñu jógee ci li nga xam ne moo di ëllëgu Ousmane Sonko ci politique mais tey jii lan mooy ëllëgu Sénégal ci politique tey jii. waaw bon xam nga si côté boobu damay rejoindre euh, mon frère euh, bi jàll mu ko am solo parce que tey jii bu fekkee ni magum jëmm bu defee erreur ñu juñ ko président day doy waar parce que tamit comme que lii fi loxo justice la nekk nañ ci def nànk nañ ci def nànk parce que ñun dañoo yàgg dañoo yàgg di tuumaal. nit doomu aadama surtout nag nga nekk président nekk njiitu réew su opposant yi lépp loo xam ne def nañ ko rek wala teg nañ ko rek wala dal dal dara dal na seen si kawam rek ñu ne président ba la alors que ne président bi tamit nit la mun na sa bañ a am na entourage peut être am na loo xam ne sa eggul moom. mais puis dama lay dagg nga baal ma rek dama lay dagg. Mhm. yow su euh, yaa réew mi nest pas. Mhm. y a de cela quelques années Idriss Seck toog na fi ñu Macky Sall moo doon comploté. Mhm. ak ah, pour moom nu euh, comment dire. nu démb rek teg nañ fi <laughs> lii c'est une continuité. ça toujours existé donc moom ji jii soow bi ak mburu bi moo neex. moo tax ngeen di prendre ngeen di prendre euh, comment dire de son excellence. waaw ok ok xala li ma la bëgg wax.

mais ba tey jii nii wax jaa mu ngi daw suñu mu ngi daw suñu ginnaaw. ah mais euh, loolu moom kenn mënu ko tere sénégalais yi. ku nekk dina ci joxe sa analyse loolu dañ koy nangu nit ku ne. mais est-ce que du loolu dañ koy nangu nit ku ne mais dama laa bëgg a wax dama laa bëgg a wax non non non non non non non non non non non non non mais tey jii seen ngor may na yéen ngeen dem àndalaat ak moom si ngeen dem àndalaat ak moom tey seen ngor may na la yéen yow yow yow ba nga juddoo ba léegi mm. ñaata yoon nga jot ak nit yaa ngi comprendre mm. nga waat ne kii du ma delloo ak moom ñu toog teg leen l'islam teg la wala leneen teg la wala diine teg la mm. ngeen toog waxtaan boo leen paree juba ànd conviction dafa nag dafa nag conviction yi du benn xam nga la may problème ñu nekk Sénégal mm-hmm. nekk dëkk boo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo lamboo benn affaire lu am solo. Mhm. moom mooy. Mhm. Euh, cousinage bi. Mhm. séeréer beeg bi. murid beeg tijaan bi. gi nga loolu nag moom moo tax ba léegi nii béyu Sénégal am léegi man senegal yi ñaar ñaar laa ngi nag est-ce que ñun dañoo war di dund si animosité ba léegi. kii taxaw mais loolu la politique non non non politique la grande démocratie comme la grande démocratie comme pays mm-hmm. opposé opposition mm-hmm. opposé parce que tey Sénégal ni en 2019 le président Seck a opposé à euh, le président Macky Sall vrai opposant non mm. ñu non war opposé. d'accord bu ñu sur si loolu le président Macky Sall mooy présent wax deug yalla suñu war a si si lu ñu war a mm. Sénégal. liggéeyal Sénégal Sénégal actuellement fi mu il a besoin de des nek day nek waccu sexaat. non non donc du question religieux loolu non xaaral xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw du question religieux amna lo xamné question de parole donnée la. question de dignité la question de conviction la yéen fi togon à l'époque amul loolu leen yàqul son excellence Macky Sall le euh, conseil économique et social bi dénigré donc du coup boo la fi des ànd ak moom du question question affaires religieuses et consorts mais peut-être vous voulez vous voulez toucher vos parts du gâteau en quelque sorte voilà, tey jii yéen am

la ragal. xaaral xaaral xaaral xaaral bii nga xam ne si lañ nekk nii. yaa ngi comprendre mm-hmm. dugg dina dem allez-y allez madame sax fa ñëw dama la parole mm-hmm. léegi xaaral ma jox parole mm-hmm. la posé question je vais pas dire ëllëgu politique Ousmane Sonko parce que loolu ku nekk jox nga si xëy mais dama politique Sénégal parce que li nga xam la politique bi euh, jeunes yu dugg politique bi ndax langue gi dafa ñaaw ba ana ban appréciation nga def xaar foofu laa doon xaar question ndax boo demoon Ousmane Sonko du ma la tontu parce que am na ñoo xam ne ñoo ko ëpp doole fuuf bi ñu dem élection ci mbalit bi dañ ko génne def ko député plus forest la ñëwee dañuy ci mbalit bi dañ ko rocce indi ko plus forest la waxu politique la. dafa am plus forest la ñëwee ak ñoom grâce yow waxoo ma ëllëgu ëllëgu ëllëgu politique PDS waxoo ma leneen ak leneen moom loolu. mais adversaire Macky la loolu doo leen bañ. xam nga yàlla dafay àtte ñu ngi ci dëkk bi di dund Ousmane Sonko ñaata doomu aadama la fi pourtant kenn waxu ci te pourtant ñooñu ay sénégalais lañ am am am am jabar ay doom di fay impôt di fay patente man xam ne laa gëm comme ni ko sama frère waxee ñaa jàllo fii bu ne taxal nañ la wolof ñaaree dafay faral di wax weddi tuuma du ragal seetal sa der la mhm. président Macky Sall Abdoulaye Wade woon na ko fi mu dem central gars yi audité ko pare dafa démissionné ne nañ leeral bi ñu gisul ci moom dara dañ ko bàyyi mu dem comme ni ñu def Idriss Seck pourquoi pas te pour ñu mais pourquoi pas Idriss Seck euh, def loolu Macky Sall def loolu keneen ak keneen def loolu léegi Ousmane Sonko moom di wóotal dafa garaaw. Mhm. woo askan bi am ñoo xam ne ñu yàq seen alal ñoo xam ne ay sénégalais lañ laalewuñ dara ci politique amaana sax. dañu nekk ci secteur informel bi gars yàq seen alal yàq seen oto mais loolu soxor la. Mhm. ba pare àdduna bi taxaw nañu moo taal réew mi Ousmane Sonko. mais ñëwaatal ñëwaatal si sama question. Mhm. Euh, tey jii lan mooy ëllëgu politique gu Sénégal parce que gis nañ ni langue politique gi li fi nekk benn jeune bu gut bëggatul politique. d' man li may wax politique boo ci bëggee dugg da loolu laa gëm. lan nga jàppee set. set delloo ko rafet bàyyi ngi tuumaal nit nit bu la wanee ginnaaw nga ragal ko ko muy sax muy muy ñu koy waxatee muy koo xam ne ñaar ñoo bokk langue politique bi man maa ngi dëkk ji da caaree kaw. je défie quiconque ci la ñuy waxee musuma attaqué le maire. Mhm. te pourtant ànduma ak moom. Mhm. parce que politique du diiral tarex mais dañ ciy jaamu yàlla. musoo attaqué le maire kan bu juddee caaree kaw musuma attaqué le maire Cheikh mhm. dafay dara day am ma woo ko téléphone jël sama téléphone comme mbas mi ne ko jàppale askan wi mais loolu mooy sama rôle. man jiitewuma kay mais kii jiite askan bi lay jiital kay la moindre des choses bu xelam tollul fii wala def na lii fàttali ma fàttali ko ko après lépp ci man lay ñëw te pourtant bokkuñu ak ñoom ko day li nga mooy loolu ñaanaluñ ko kenn ñu ñëpp ay sénégalais la ñu ñaan yàlla li ñuy wax ni yàlla ko yàlla dindi ba mu dellu njabootam mais nag nañu bàyyi tuumal président Macky Sall. Euh, d' accord euh, ci noonu rek on va rester toujours dans la politique euh, xëy na rek dañuy dem rek wax li nga xam ni moo di ci fi nga xam ni moo di diwaanu Jidda Caaroy Kaw Mouhamed Goloko ñu gis ni ñi nga xam ni ñoo di parti réew mi ak parti APR commencé nañ soobu di liggéey ba sax seen leader daal di dem rejoindre Macky Sall mais ci noonu gis nañ ni la plupart du temps am na ay euh, seen partisans yoo xamante ni nanguwuñu ànd boobu yow ban appréciation nga siy def. waaw xam nga politique affaire d'intérêt la c'est-à-dire euh, politique dañuy dafa nekk loo xamante ni euh, ku nekk sa intérêt ngay wër donc. ñi nga xamante ni ñoo nekk euh, du côté de euh, de Macky Sall de APR wala ñi nga xamante ni ñoo nekk du côté de réew mi ku nekk li nga xamante ni moo la arrangé loolu ngay def. Mm-hmm. gars yi nekk luñ fi askan wi gars yi dañuy dajaloo pour mën am li nga xamante ni mooy li ñuy def seen i poste wala am benn mainmise fi nga xamante ni moo di seen i seen seen seen commune mais politique gu ñu pour li nga xam ne moo di askan wi parce que bu doon politique pour askan wi am na ñaar ñoo xam ne tey jii waruñu woon ànd mais ku nekk sa intérêt ngay doxal moo tax ñoom ñaar ñu war a mën a ànd tey. mais gis nga ay partisans am na ñoo xamante ne nanguwuñu ànd bi. waaw nanguwuñu ànd bi tamit ku nekk sa intérêt la rek. parce que xam naa ni seen ñaari partisans ñi ngi ah, toog ñoom après. ku nekk dina sa appréciation parce que tey bu fekkee ki nga ñaar ñi nga xamante bu fekkee réew mi dafa nekk Djiddah Thiaroye Kaw APR nekk Djiddah Thiaroye Kaw Euh, ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck dem rejoindre Macky Sall ki nga xamante ni dafa nekk réew mi te doon wër par exemple nekk maire Jidda Caaroy Kaw bu fekkee dañ ko ne demal nga bokk APR wala def leen bloc APR ñu far ñu fal ki nga xamante ni moo nekk APR pour son intérêt personnel kooku rien au monde du ko du ko permettre mu dem rejoindre kee du ko permettre mu dem rejoindre kee Mohamed Fadiga yow lan moo ci sa appréciation waaw comme sama frère fu mu daanee rek mooy affaire bi ku nekk sa intérêt personnel ngay jiital d'abord mhm. tey ji dafa am benn conflit interne mhm posé woon question après ñu Moi, déclaration patrimoine et Idriss Seck mu fuité kan

77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 tay ñu am dalal ñaari kàngam ñi nga xamni nak dañuy yëngatu ci walum euh, politique mudi Bi Diallo ak ki nga xamni modi Amadou Niang Diallo euh, mu melni rek émission bi mbokk internet yi dañ koy seetaan ci ci lañu ñu bokk am question bo xamante pour bilak ak euh, ki nga xamni modi Amadou Niang Diallo am ñing mi ngi laajte néna j'aimerais savoir si les deux invités peuvent nous expliquer la fuite de la présumée

musoo gis benn prison nga dugg nga ne euh, prisonnier bi ndax da ngaa def mun la waa maa def am fenn kon tey jii nii nañu nangul dara nañu maanu si mbir bi parce que ma mu ne maanu moom mooy jigéen ab jigéen moo accusé ab góor te jigéen comme ni ko sànq sama frère waxee mu laa fàtte moom sànq ne sujet bi yëpp li ñu si wax lépp dañuy défendre Ousmane Sonko en principe d'accord parce que nag ku nekk da ngay wax sa travail bàmmeel fàttali si xale bu jigéen bi. Mhm. te jigéen ak nu solo ko euh, mhm. même bu fekkee ni moom wax version. Mhm. version ndax wala loolu euh, justice moo d'accord ma bëgg a suñu xel moom mooy. ñun parce que fekkee wuñu dañoo dégg ay version te xamuñu fan lay dëgg bi dëgg la euh, non par mesure de prudence d'accord que d'accord yow question bi nga xam posé lan nga ci non mooy li ma wax rek euh, sànq au départ fii ku ci taxaw wax rek dangaa wax sa sa naf su num la neexee mm-hmm. mais na ñu bàyyi xel ni mm-hmm. Ousmane Sonko sénégalais la mm-hmm. Adja Sarr sénégalaise la mais ñëpp dañoo far jëm ci Ousmane Sonko tuuma nag metti na mais ñu daf la it metti na kenn xamul li ma la waxoon rek ñett ci am que ça soit Adja waxul dëgg wala Ousmane Sonko waxul dëgg wala sur le fond la ñu waxtaan ba jubóo. Mhm. loolu ci a am. mais nag ñun duñu ay juge juge mooy atte. d'accord juge bu ñu bu defee Ousmane Sonko noonu lii ñoo xam ne ndaw si tooñ Ousmane parce que gàkkal dafa am mhm. bu ñu attee ne Ousmane Sonko moo defee na xam jigéen la def après lu yoon may mu d' euh, mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seetaan bi nga xam ni moom ngeen ñuy seetaan ki nga xam ni mooy Rama Ba yaay mi ngi naan félicitation mon frère xaw ma kan la ciy waxale ci yéen ñaar ki nga xam ni moo di Abdoulaye Camara moom mi ngi félicité bu baax a baax ñi nga xam ni ñoo di chroniqueurs yi mais am na benn question boo xamante ni jot naa ko ci Mame Mbaye Junior mi ngi laajte nee na chroniqueurs yi xanaa ay opposant lañ tontu leen ci loolu non chroniqueurs yi dañ fay nekk ngir li nga xamante ni moo di askan wi il ne faut pas que

d'accord Seydina Bilal Niang depuis la radio Oxygène FM merci beaucoup mi ngi suivre ci li nga xam ne moo di émission bi waaye tamit mbokk internet yi question yi bari na bari na bari na trop euh, du lépp rek liñ naan li du ci nak bi xajul ci cin bi mu melni rek dañuy jall rek ci li nga xam modi deuxième partie mais avant lolu amna question bu ma posé woon euh, ñi nga xam ñoo di sama chroniqueur te sama invité tontu wuñ ci euh, tey Amadou nya Diallo ñu gis ni ki nga xam modi Sonko en fait pas Sonko mais Idrissa Seck ak Macky Sall and nañ liggéey mais gis nañ ni si ci seen ay euh, partisans ñu si bëri d'accord luñ si euh, ci une minute rek ana lan nga ciy wax. bon man moom lu mu si xam moom mooy euh, fii nga xam ne fii la diwaan bi lañ nekk moom mooy commune di Thiaroye ko jàpp nañ lu ñuy wax moom mooy ñoo ñoo ànd. kon yéen d'accord ngeen ci jubóo ngeen. dañu am kilifa le président Idrissa Seck bu ñëwee ba toog war a bokk si jàppale frère am jàppale doomu euh, Sénégal parce que bu ma nee Sénégal moom mooy situation addina euh, bi fu mu toll nii yaakaar naa këral yi dañ ko war a teg ci suuf lu gën a am solo moom mooy àndandoo jéem a xool ban avenir bu baax a baax a baax lañ mën a euh, tegle suñu jeunesse bi. d'accord am solo te ñun dama jàpp ne le président Idrissa Seck am na mat boo xam ne il a bien euh, réfléchi par rapport à décision boobu la ba son frère. Macky Sall d' accord. ma lay frère xam si dara Bi d' accord ñu toogandoo ñu ataaya. tey jii gis nañ ñi nga xam ne ñoo di parti APR comme tamit parti réew mi eh, doon ak doon eh, donte sax Macky Sall ak eh, Idrissa Seck jamono jii ña nga ànd di liggéey mais ñi nga xam ne ñoo di seen ay pères partisans des fois nga gis ñoo xamante ne ànduñu ci loolu ban appréciation nga ci def. non en fait euh, ñun dafa am lu suñu parti APR yaakaar kenn xamuñoo wax lu bon. kenn xamuñoo sos kenn xamuñu kii ñun képp ku ñëw ñu yaatal la président Idrissa Seck ku ne bëgg nga ko am sa président Idrissa Seck sénégalais la dafa bàyyi faveur yu bëri ñoo jàppale Macky Sall parce que dafa am lu ñu gëm yi gars yi di wax yëpp ay wax kesew kesew la nit fase na fi jabaram ñaar fukki at àndaat ak moom fii àdduna la foog ñuy bàyyi loolu xel dafa am loo xam ne xel moo ko nanguwul xoolal li mu bàyyi yëpp faveur yëpp pourtant bari ci dem ñu wax of nag ki yombi ko ci mais dañu toll ci benn contexte boo xam avec le Covid 19 yàlla na ko fi yàlla jëlee képp kuy Sénégal pourtant gis nañ fi ay bailleurs Idriss Seck rek la ñuy wax gis nañ fi ay bailleurs yoo xam ne duñ ay politiciens duñ dara mais dañuy dimbali askan wi. d'accord moom loolu dafa ñëw pour apporter tout son ci loolu te ñu ngi koy féliciter. te wax dëgg yàlla bi fi ñëwee ba tey mi ngi liggéey liggéey mucc ay boo xam ne ñu ngi ci gis. est-ce que est-ce qu'il n'est pas politiquement mort parce que mais dafa mel ni réew mi guddi yi coquillage vide la. président Idriss Seck li mu fi def ñi nekkoon

musul wax loolu. ah VAR yaa ngi ah VAR yaa ngi fi de non non léegi ma <laughs> VAR. musul wax musul wax loolu. d'accord d'accord ne Idrissa Seck moo ne woon am na yoo am na institution yoo xamante ni. Euh, mu euh, tuddoon ko mu tuddoon ko. Ah? ah mu tuddoon ko. mais am na institution yoo xam ne. non non ko pour pour pour montrer que yéen dañ leen enterré sax xam nga xam nga xam nga actuellement ni fi mu toll nii. Mm. Mm. nekkatuñu si euh, nekkatuñu si moment wu désinformer les les la population sénégalaise. Mm. yaa ngi comprendre actuellement dañ leen war a jox loolu bon information. bonne information parce que lolu moom ñu war xam nga tay ji man duma ma ni ñu ne président Idrissa Seck mo waxone ne CES bii. c'est budgétivore la déedéet. pourtant CES bi dafa bok ci programme am dafa bokk ci programme en 2019

lu mu war a. lan la war a def jamono jii. lu mu war a def. ah moom wax na version def na lu mu war a def nee na def na conférence de presse expliqué na moom sa version. Mhm. nee na dina def plainte. Mhm. quel mhm. euh, bu fekkee ne moo tooñ. justice ko bu fekkee tooñu justice dina wax même bu mu nekk loo xam ne moom lañ ñu bëri di yaakaar wala ñenn ñi moom lañ yaakaar mu muy complot def plainte mooy taxawaayam ah, waaw jàlloo lan moo war a nekk taxawaayu Ousmane Sonko jamono jii Euh, Ousmane Sonko li war a nekk taxawaay mooy d' abord na xoolaat comportement am toog xaar dañu ko porter plainte porter plainte ko mu ngi côté justice am na lu ko am na ko faveur bu mu am nga bëgg ko am nga bañ ko te kenn bañu ko sénégalais nag. Mhm. am na immunité parlementaire. Mhm. dañoo ba ñuy wax leneen. Mhm.

pertinemment parce que vous êtes de la banlieue tay dit lan moy sen ay projet lan moy sen ay stratégie lo xamanteni vous fay banlieue euh, ok bon man banlieue mo parce que jamono daa fekk ndawam ay ndawam uh, am ay bànqaas yu baax. Uh-huh. kon man dama jàpp ne. Uh-huh. Uh, stratégie bu gën a yomb wala bu gën a gaaw wala bu boobu nga moom laa gën a sentir moom la jeunesse bi gën a soxla moom une bonne uh-huh, formation. parce que tey jii boo xoolee. Uh, xale yu bëri am nañ doole bi am nañ kàttan bi am nañ kii mais formation la ñuy dama jàpp ne actuellement ni banlieue bi soxla nañ ñu former jeunesse bi. si métier yëpp nag si métier yëpp ba pare bu ñu bu ñu pare nag jàppale si ay financement mm-hmm. comme ni ko président Macky Sall initié mu may DER bi mm-hmm. jàppale si bu baax a baax euh, jeunesse bi mm-hmm. ñu ànd ak formation bi parce que xale bi mënoo ko jox xaalis bi ne ko dama mais yaakaar boo ko tegee si yoon jàngal ko ni mu koy utee jox ko xaalis bi utal ko euh, benn suivi bi rek yaakaar naa dina génne si yenn

am na lu ñu jàppale mais maire bi ñu koy woo pour mu ñëw jàppale jeunesse parce que moom am na ay prérogatives te am na ay pexe yoo xam ne su ko defee jeune nañu am dara parce que ñun lan rek moo ñor mooy suñu commune. Uh-huh. parce que bala ngaa départ di politique commune ngay commencé dem département dem national donc comprendre nga. affaire loolu la te lépp lu ñu amit suñu commune moo ñu ko gënal. d' accord euh, suñu commune amaana sax bi mooy nag dernière question boo xamante ni dama koy jël li nga xam ne moo di politique bi je rappelle que yéen a ngi suivre seen émission càmbaru bi di am euh, du lundi au vendredi ngeen daan faral di gis sax sama naataango Amadou Gningue mu mel ni rek moom tay dafa daal di rek jël pause ma daat ko fii rek jéem remplacer tuuti euh, ci noonu rek di xamal ni képp koo xamante ni bëgg nga ñu invité la ci li nga xam ne moo di suñu plateau càmbaru

Réumi est mort depuis que Macky Sall est devenu quatrième président, car Réumi ne signifie rien d'autre que rendre Wad et maître Amadou question mais il est mort politiquement d'accord réew mi mm-hmm. ba léegi constance bu mu am moom la am mm-hmm. que même le président Idriss Seck mu rejoindre la mouvance présidentielle. Mm-hmm. amul benn coordination boo xam ne démissionné na. wala benn euh, coordination boo xam ne yëngu na. kon ñun ba léegi jàpp nañu ne. yooyu fu mu nekkoon fa Euh, samay chroniqueur soo leen ci amee rek kàddu yoo leen ci sànni est-ce que gisoo leen li nga xam ne moo di parti réew mi euh, politiquement dafa rek daal di dee ndax euh, Amadou Gningue sax mi ngi naan réew mi ne signifie rien d'autre que rendre Wade et Idy ku nekk rek joxe sa appréciation gëla ko waaw man moom xaw ma poser question mais je suis d'accord avec lui hein à chaque fois que Idrissa Seck est proche de de d'atteindre li nga xamante ni moo di fauteuil présidentiel bi je dirais entre guillemets dañ koy nax ba mu gën a éloigné aussi li nga xamante ni moo di loolu donc je pense que c' est la dernière fois euh, mu mu amoon possibilité bi te Macky Sall enterré na ko et puis ça y est quoi. ça y est euh, Mouhamed Fadiga. waaw lu ñu waxoon tantôt rek mooy fii politicien bu nekk bu nekkee pouvoir day wutee stratégie pour éliminer ce ce potentiel adversaire mm-hmm. te ñëpp xam nañu ne Macky Sall réussir na ko parce que boo dégloo la population sénégalaise. Mm-hmm. waxatuñu dara lu jëm c' c'est édit donc politiquement il est mort. il est mort euh, politiquement il est mort mu mel ni sax foofu lañ koy ndax keppe ci li nga xam ni moo di. diwaanu politique ñu daal di rek dugg si ñaareelu pàcc gi fas yéene wax waxtaanee rek li nga xam ni moo di fait divers mu am rek ab sergent bi nga xam ne nag ma nga nekkoon fële ci diwaanu Wakaam dañ ko rek daal di teg loxo ginnaaw rek ba mu doon euh, sàcc xam ne moo di ay produits sanitaires di rappelé wu rek produits sanitaires yi nga xam ne moom la doon jël dafa doon euh, daal di jëm rek ci ñi nga xam ne ñoo am feebaru roño euh, di faju mu mel ni sax amaana sax bañ ko daal di jàppee moom rek dafa daal di avoué ni moom moo ko def Mouhamed Goloko lan moo si sa appréciation ah, loolu doy na war man de sama appréciation mooy loolu moom lu doy war. un sergent li nga xamante ni un sergent ñi nga xamante ni ñoo waroon maître de l'ordre bu fekkee ñoom ñooy semer le désordre ah loolu yéem na ma trop trop trop <laughs> euh, rawatina nag euh, def ko ba pare dem def li nga xamante ni moo di euh, avoué ko parce que bu fekkoon daf ko def ñi laam-laamee te àggaguñ ci mën nañ tiit ne est-ce que moo ko def wala est-ce que tuumaaluñ ko mais comme que moo ko avoué moom nekk na loo xamante lu doy waar la te loo xamante ni comme ñu ko daa waxee société sénégalaise moo feebar moo tax ngay gis ministre buy déraper di gis président buy déraper mais di gis aussi sergent boo xam xam ne day déraper leer na nañ rek Fadiga lan moo ci sa gis-gis. waaw cacophonie bi moom au sommet la nekk ah désordre bi moom au sommet au sommet au sommet la nekk mais nag lii nag day tax ñu gënaat am tiitaange gën amati naqar bu ñu demee ba gis koo xam ne yow yaa waroon veiller. Eh, suñu sécurité eh, yaa waroon veiller ci matériel yi nga dem ba yow di ko sàcc di ko yóbbu loolu li ñu ñëwaat rek mooy eh, déontologie amatu fi donc ñi ñi léegi sama frère wax na ko mooy moo yu la société sénégalaise moo bëri mais lépp nag ca kaw ga la commencé ca kawgal la ah, commencé amadou ñadiallo li nga xamni modi fait d'hiver bi ana ban eh, gis gis nga ci def waaw bon ci côté bobu dama nan société mo fébal société mo fébal parce que tay jii ni eh, dañ nan ci côté santé wala ci côté lénen mais yaaka na ci côté yépp la bari na ci parce que nit ñi comme ni ñoo éthique wala moral bi ñu waroon andal si yenn pàcc si pàcc yu bëri léegi dafa manqué. Mhm. parce que tey jii toog nañ si plateau. Mhm. Eh, invité saaga kat mu toog di saaga. Mhm. journal euh, chroniqueur bu toog si wet ba. moo ne ko sax mm-hmm. jaratul ngay saaga parce que boo saaga am na loolu si mën a fekk. Mm-hmm. léegi jëlal euh, euh, mbuusu xorom si. Mm-hmm. boo waree saaga ne ko maa ngi dem dindi xorom si bitig ba. loolu nga yaakaar ne loolu dañuy gën <laughs> imprégné suñu jeunesse nga xam ne dañuy sant bi. kon cest ñu ngi encouragé kii nga xam ne day saaga ñu ne ko continuer di saaga. kon cest à affaire bi du mbiru sergent bi kese mhm. mais mbiru fépp la mhm. ba si biir ñi nga xam ñoo war a joxe les les bonnes informations boo xoolee sax ñoo si bokkum sax léegi dañuy am tendance kii nga xam ne kooku lañu gën a joxe crédibilité mhm. moom mooy kii nga xam ne affaire yu mës. affaire kii saagara diw kii toñ na diw kii toñ na kii kii toñ na kii boo xoolee ñun sénégalais si yor lañu attaqué moom. lii nga xam ne moom mooy askan bi loolu la war a gën a mën a soxla parce que tey jii mën nañ comparer Sénégal ak Rwanda. parce que. Euh, suñu at bëriwul. Mhm. mais fekkee nañ fi euh, génocide Rwanda bi. Mhm. fekkee nañ fi. Mhm. fekkee nañ fi génocide Rwanda. mais Rwanda ak euh, Éthiopie Kenya. beneen ñun bu ñu gis ku ràgg ba jeex takk dañ naan naan éthiopien. parce que lekkoo. mais tey jii nii dama tey jii dama Rwanda parce que ñoom seen askan léegi lu ñuy fu ñu fu ñu jëm moom mooy si jéem a jongante si lii nga xame ne moom mooy. ci ñu ci bés yi. d' accord kon ñun Sénégal bi ñu demee ba toog jii ba toog jamono jii nii nii fi ñu nekk nii. Mhm. naan kii sàcc na diw kii sàcc na lii peut être céréales bi xam naa moo bëriwul moo tax. Mhm. <laughs> <laughs> d' euh, bi Dia loolu ana lan nga ciy wax. waaw fi may wax ñuy tàggatoo rek man moom presse bi presque li ñuy wax lu ci ëpp du ma convaincre xanaa ma gisal ko sama bopp lu ma gëmal ko sama bopp mais comme ni nga koy waxee ci sergent bi d' abord dañu war a xool li tax mu def loolu d' abord beneen bi ci des yàlla bi gàtt boo xam ne moo yor armée bi xëy na ñoom dinañ ci saytu buñ ci saytoo nag après ñoom xam naa dinañ leeral affaire yi mais wax dëgg yàlla man moom mun ma ci sori daal parce que jaar naa ci. Mhm. nekkoon naa gendarmerie xam naa lu bari. Mhm. moo tax mun ma ci sori te sincèrement parlant militaire sonn nañ trop. Mhm. waaw ni ñuy dem Casamance xam nañ loolu. militaire sonn nañ. neen état bi dooleel jàppale leen. yenn saa nga toog deux ans doo gis sa jabar. feet day jot sax doo mën a dem. bàyyi position yi. xam nga loolu dafa metti maa ngi wo rek euh, le ministre des forces armées MFA mu gën a dooleel armée bi police gendarmerie sapeur pompier. Mm-hmm. wax dëgg yàlla marine nationale la leen dooleel daal parce que gars yi. Mm-hmm. vraiment ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. parce que ñun ñuy nelaw ñuy bëtt frontière di ko garder loolu rek yombul. waaw di leen encouragé di wax it euh, sergent bi it xëy na nañu xool li ko daaloon d' abord bu pare quoi.

bi neexoon na lool ak euh, Mohamed Fadiga euh, comme nu ma ko comme nu ma ko defee woon démb di fàttali ni tey 12 février nekkoon euh, bis bi nga xamante ni ki nga xamante ni moo di El Hadji Omar Tall di un grand conquérant un grand musulman ki nga xamante ni moo jeté les jalons li li tax l'islam mën a am fii nii doole mm-hmm. donc El Hadji Omar Tall tey la génnoon àdduna 12 février donc ñu koy rendre un vibrant hommage di ko ñaanal mais aussi di wax ni sénégalais yi bu ñu ni c'est l'un des des personnes personnes yu des c'est l'une des personnalités yoo xamante ni mm. ñoo tabax li nga xamante ni moo di Sénégal mais ñoo tabax li nga xam ni moo di Afrique di leen jox dig daje ëllëg euh, ci seen émission euh, euh, chez bi nga xamante ni gars yëpp dinañ fa teew incha allah di leen jaajëfal di leen joxaat dig daje altine ak jàmm ci beneen càmbaru bés bi. jaajëf bu baax a baax yow mi nga xam ne yow yaay Mouhamed Goloko Mouhamed Fadiga lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. waaw di yi nga xam ni yàlla ñoom la moom la fi teg donc nunu dimbalee askan bi aussi comme sama frère fu mu daanalee rek mooy armée bi amuñu seen fay parce que man je me rappelle dama doon voyager vers trois heures du matin si nawet bi muy taw mais fépp fooy dem dangay gis gendarme yi noonu fi sous la pluie donc loolu mu nekk loo xam ne daf ma marqué donc ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax benen bi mooy euh, feccu liir bu neexee rek liir baa jàpp sa mbagg ya moo tax may remercier bu baax a baax a baax euh, nos chers internautes amuñu seen fay di leen jaajëfal bu baax a baax mais aussi rek di remercier ñoo xam ne noonu ñuy topp euh, depuis bint non Awa depuis Guédiawaye marche bu bees Ousmane Fadiga de mission Gambie maa ngi koy ziar bu baax a baax mais di remercier nag toute l' équipe technique tey moom dina am technicien bu bees <laughs> maa lay mon frère ñëw et le cameraman de la République Abdoulaye aussi di remercier mes deux grands frères di leen remercier seen disponibilité le temps yi di

di remercier sama grand frère bi Diallo nga xam ne ni moom euh, doomu Jiddu Caare kaw la te yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko def ay social bëri na si biir Jiddu Caare kaw di remercier sama président sama coordinateur euh, Abdou Salam Mbaye. ñi nga xam ne ñuy sànni xeer depuis sama sama nit la quoi man sama lépp la. waaw moom na jaar démb. Euh, kon bu mu jógee si loolu di remercier sama AIC AIC Gune Penc AIC bu mag bi. di remercier tamit sama mouvement MGL. ñoom tamit ñu ngi la doon suivre bi. Euh, mhm. nga xamee ne ñoom ñooy euh, exemple xale yu góor yi wala xale yu jigéen yi. Mhm. yi nga xam ne ñoo tëkkee ci décaré ko. Mhm. waaw parce que dañ naan euh, ban jeunesse lañu soxla ñu ne jeunesse bu compétitif. jeunesse bu am taxawaay. te yaakaar naa ne man en tant que président du mouvement. gis naa fa crème bi crème mu ji décaré ko mu ngi fa. kon ñu ngi ñaan képp koo xamee ne. Yangi ngi gëstu ginnaaw yaa ngi gëstu jeunesse bi. Mhm. nga jaar fa xool seen taxawaay si jiite caare ko parce que boo xoolee dama fàtte woon joxe benn message par rapport ak mbas bi. Mhm. di wax nañu euh, continuer takk masque yi di raxas loxo yi tamit di wàññi kii bi. Euh, déplacement ak rassemblement yi fi am ñoo xam ne ñu ko. Mhm. te dañ ko war a gëm parce que dafa nekk loo xamee ne mu ngi euh, yóbbu ñu bëri. d' accord comme ni ko ministre Malick Diop waxee woon keroog rek. mag yi ñu ngi dem. Mhm. sans nous dire adieu. adieu c'est vrai ma lu war a bàyyi xel la. parce que jeunesse bi dafa soxla waat. ay mag. d'accord kon xam naa ni sax yow sa mouvement bi du ñàkk rek dinañ la invité ci émission mouvance bi nga xam ne moom la ñuy def nga xam ne dañuy dalal tout ce qui est ASC waaye tamit tout ce qui est mouvement Amadou Diadia Amadou. Nia Diallo excuse ñu lay jaajëfal aussi di rafetu li nga xam ne moo di déplacement bi ak tey li nga xam mbégte lay doon rek saa su ne nga ñëw teewal ñu tey fii suñu plateau euh, bi Diallo lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggatoo ak gërëm di gërëm ñun doon seetaan ñëpp di gërëm plus particulièrement la communauté de Thiaray kaw parce que seen produit ñoo fi toog li sant lu ak yokkute amaan dañ doon jéggaani lu bari am na suñu commune dañuy sant di ñaan yàlla ngeen yokk baal seen télé bopp amin amin amin parce que it euh, li mag ñi di wax rek mhm. bu ñu nee ñaar rek benn tax te wax dëgg yàlla bu ngeen ñëwee yàggul mais gis nañ fi exploit bi ngeen fi def mhm. yàlla leen yàlla yokk jàppale leen doole leen di wax mbokk internet rek comme ni ko suñu jigéen waxee rek bëgg émission dëkk dans le département de Pikine wala pourquoi pas sax feneen mm-hmm. parce que gars yi yor nañ matériel yu sophistiqué ba pare wax yàlla <laughs> aareen xarañ nañ mm-hmm. sant naa leen gërëm naa leen parce que ñun ñëpp wax dëgg yàlla mm-hmm. lii moo ñuy fësal président Macky Sall bu demee bu jógee Fatick ñoo nekk président ci yi la ñaar kon nag wax dëgg yàlla ñu leen sant leen gërëm am na lu ñuy waaj sax xam naa nañ leen si invité ngeen ñoo bi soog yàlla mu nekk ku ñàkk ki ñaan nekk tamit sama sama sama xarit bu baax a baax eh, ci noonu rek eh, je fais un eh, coucou ak ki nga xam ni moo di Alioune Diagne nga xam ne nekkoon naa moom foofu ci en direct de Pikine su ma xamanteeg ñoom sax ginnaaw yàlla moom moo tax maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar tamit lu bëree bëri mbokk internet yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal di jéggalu ci question yi nga xam ni jotuñu ko répondre tey moom émission bi macha allah xam sama sànq ba tey sama technicien mi ngi may def signe damay ragal ni une de temps lañ jëm xaabaabal nañ bu baax a baax ci waxtu bi waaye tamit mu nekk loo xamante ni émission bi moo ko laaj mu nekkoon loo xamante ni ay point yoo xamante ni dañ ko waroon éclaircir ma ciy jéggalu bu baax a baax mu mel ni rek euh, am na lu bees tàq loo xamante ni ñu ngi koy waajal muy plateau spécial Saint-Valentin euh, dimanche lay doon à partir de 17h kan moo koy présenté euh, point d'interrogation xam naa ni daal dinañ ci gis ay couple yu tarkar la ay couple yu macha allah couple pas comme tamit couple mère wala sax couple jeune mu mu nekk loo xamante ni mbokk internet yi mun ngeen ko xaar dimanche à partir de 17h spécial plateau Saint-Valentin lay doon di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne mooy suñu directeur général di Abdou Salam bay waaye tamit jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci équipe technique bi mu di Amadou Mbodj ak ki nga xam ne moo di Abdoulaye Camara mu mel ni sax tey sama naataangoo Amadou Ñing moom tamit ci technique bi la daal di fare woon di ko jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal suñu mbokk internet yi nii lañ koy defee du lundi au vendredi seen émission càmbaru bis bi jàngeen jëf